الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ñu ngi sant yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi fas yéene yëkkati ay kàddu yoo xam ne dafa tukkee ci représentant xalif général des Layènes muy Aladi Cheikh Gallo Laye sek. yàlla dogal képp ku dëkk ndakaaru ci baatu xalifa bi Mom mo fi représenter xalifa bi mu jël batam ak kaddom ak betam ak leppam dénk ko alaaji As Assekalai. mu nekk président bi nga xam ne bi ñu defaraate ndakaaru yépp moom la jël teg ko ci loxoom sang bi ñuy nuyu sunu sang sunu xalifa seydi mouhamadul moxtaar ibnu seydina mandion ibnu seydina limaamul mahdiyu di ko ñaanal yal na ko yàlla yàggal yal na yàlla yokk wéram yal na yàlla yokk ay teraangaam di ko ñaanal ay rakkam Mouhamadul Amin maam Libaas ak imaam Mouhamadul Mokhtar di wax ci baatu alaaji Seex galo ne mu ngi leen di dalal sang bu tedd bi Seydi maam Libaas ànd ak njabootu Seydina Limaamu gu tedd gi di ay rakkam waaye it mu fekk fi it magam di jaamam di bàyyi Seydi Sarr mu ñëw nag moom it ci ndigalu. imam Mouhamadul Mokhtar ibnu Seydi Aboubacar ànd ak délégation bu am solo Cheikh gala mu ne ñu ngi lay ni sant di la gërëm di la ñaanal yàgg sa njaboot gi nga àndal nee na bés bii bésu fàttaliku la ndax 30 ans ci ginnaaw en 1994 géewaloon nañu fii Seydina Abdullahi fii tey ñu taxaw en 1994 boobu ñun ñii di wax bokkoon nañ ci soldaar yi daan taxaw di jaayu nee na muy fàttaliku bés boobu sànq rek vie jong mu ngi ciy wax tuuti kon nee na ñu ngi lay dalal ci sa péncu maam ci so urumu di la ak mbolo mi nga andal yep neena di sant nag di nuyu tamine suñu imam ratib pap Makhtar Diouf di ñaanal yàlla nako yalla sam ak a imma yi mu nekkal yep ñom Serigne libas ñom Serigne Jal ak in Omar Lay ak ñu top seen ginaaw neena nak di beral cant ak ngeureum ci di tek ci loxo baye Sidi sar ci imaam Mouhamadul Muxtaar bu demee mu yóbbul ko ko imaam mu ne mu ngi lay seddal ne sant nañu imaam gërëm nañu ko ndax mosul bàyyi loxoom ci ndakaaru rawatina bés bii nga xam ne sunuy doom sunuy sët ak sunuy jarbaat ñoo ko def jël bés bu tedd bi jagleele ko Seydina Abdullahi ak rakkam ju tedd jooju muy imaam Mouhamadul Muxtaar ñu naan Seydina Abdullahi yal na yàlla yokk ay leeram di ñaanal imaam Maxtaar yal na yàlla yàggal ko fi te yokk wéram Cheikh gala mu ngi ne mu ngi lay seedeel ne sant nañu ko gërëm nañu ko nee na mu lay seedeel ne nag suñu njaboot gii tey jii di xale yi bàyyi laay nekk jàmbaar nag lool seen itte yëpp mooy diina ji seen bëgg bëgg yëpp mooy diina ji bu samedi jotee taluñu dara Ludul fu bàyyi njindi dem ñu ànd anda moom ànd ak seeni mag mu faridun ñu jappale len bu baax neena nak li ko ci gëna neex mom cheikh Galo neena tay sang bi bo xolé tante bi yaay yi maam yi baay yi ndijaay yi jarbaat yi dañu jog boot seeni dom jappale len ci bes bi neena mu bëgg nga ñaanal dakaru ba ni tay ñu tapo nek ben yàlla jàppale ñu ba lépp lu ñu sumbati ñu daan ko ci yàlla nee na mu ngi lay seedeel ne sant na jigéenu ndakaaru yi tey boo fi jaaroon ci bëccëg sanga bi wala nga yabaloon sa benn sama benn waay alaaji Idrissa kon da naan tey lan moo fi xew tey képp ku dëkk ndakaaru ak foo mënti ne si jigéen ñëw nga jàppale seeni doom uufle leen ñu lay seddeel na sant nañ gërëm nañu si baatu Seex Gala mu ne nga ñaanal leen xale yi ndax mënoon nañ defi leneen ak ni ndakaaru rëbee ndax ku nekk yaa ngi naan duma sama duma duma sama dom mu dem daayira waaye yaa ngi bàyyi sa doom mu ngay naan ay volé ak leneen ak leneen kon nee na mu ngi lay seedeel ne suñu njaboot gii sant na leen ci góor ñi ak ci jigéen ñi amul seen pay yal na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla aar nee na mu ngi sant nag magi ndakaaru yépp bàyyiwu ci kenn di sant Baye Sidi Sarr mi jiite délégation bi mu bokk nag ci mbir mi ndax mooy kilifa Ndakaaru ñu ngi koy ñaanal moom mii ci baatu Cheikh Gallo yàlla na nu ko yàlla sàmmal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla yokk wér ak délégation bi nga xam ne Ibra Sow mu ngi ci Mbaye Kebe mu ngi ci Omar mu ngi ci ak ñi ci tegu ñëpp su ma limee dinaa juum waaye nag di la wax ne tey suñu benn mag di sa mag dafa ñëw jàppale ñu ci bés bi ànd ak ak imaam Maxtaar muy alaaji Daawda Dieng wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bay sëriñ jërëjëf mañang bisimilah bisimilahi rahmaani rahim aouzu billahi min asheytaani rajim laa xawla wala quwata illa billah alil azim ñi sant yàlla bu baax di julli ci seydina alimaam alayhi salaatu wasalaam di ñaanal xalifa bi yal na yàlla yokk wéram te bàyyil ñu ko fi suñu maam Duudu Maxtaar yal na yàlla bàyyil ñu ko fi ñuy ziyaar di nuyu représentant xalifa bi muy suñu maam Cheikh Gallo ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla guddal fanam di nuyu imam Pape Maxtaar mi nga xam ne moom la yàlla dogal mu nekk imaam ratib fii ci Ndakaaru ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar bu baax a baax a baax di ziar chef de quartier bi di ko nuyu di ko jox wàccu waayam di def benn rappel ci li nga xam ne moom mooy historique gu xale yi Baye Laye tuuti rek ñu briefing pour ñu xam lii sababu mbooloo xale yi Baye Laye suñu papa Ibou Laye moo ko yoroon di ko doxal suñuy mag yi nekk ci suñu ndijaay yi ñoom ñëpp nekk ci ñun ñu judd gis loolu nekk ci parce suñu waajur yi ci diine la lañu yaré bañu mag nek màgg nekk ci loolu Ibulaay di def daayira yi par dimanche vacances ñuy doxal di doxal ba jamono dox ñu jël ko ci samedi dimanche bi indi ko ci samedi diko doxal diko doxal diko doxal ba 2010 Baye Serigne daran gaare fi suñu papa Baye Serigne ay car diko tek diko may daayira Dakar waye mbolo mi taxuko wona woon yalla dogal 2011 ñuy and di jël ay taxi di dem fu général bi taxaw rek ñu fekk ko fa 2012 2013 ñu xool ne suñu mbooloo mii war nañu mën a taxaw di dem di jëmmal ndakaaru ñu waxtaan ci ñun ñëpp ba juboo ñu ànd ak suñu délégation soxna Ndey Seen jiite leen di jàmbaar bu baax a baax a baax a baax mbir yi bu agsee fii ginnaaw yàlla moom am na ci solo trop ñu waxtaan dugg ci kër gu nekk tagul way juri njabot gi keur guñu dem budé 100 yalla cent dimbali nañu 90 pour yalla may nañu ci ndam waye dafa am waajur juri xam ne dañu né bàyyi nañ bàyyi nañ njabot gi waye lepp lu dal suñu njabot ci sen responsabilité la nek yalla dimbali ñu sutural ñu ñuy and ak Baye Ndiagne ciow 2013 ba 2024 yakarna yagna di profiter occasion di ñaanal général Baye yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla yàlla may wér bàyyi ñu la fi yàgg say rak njabootu bàyyi laay gépp alayhi salaatu wasalaam di ziar sëriñ sërif Idrissa bu baax di suñu waay fu ñu taxaw rek mu fekk ñu fa lu ñu xewle mu fekk ñu fa di kenn ci ñun ci loolu ñu daan taxawal ay journée di dem di dem di dem di dem ba yàlla dogal journée yi taxaw

suñu chauffeur boobu ñu koy gërëm bu baax di ñaanal mu ngi dëkk ba gorom di tuddu yaako ñu koy ñaanal bu baaxa baaxa baax mbir yi bu accé fi mom ci la di gërëm suñu papa Baye Serigne Nak mom tek doon tek ay car Nyu kenn du dem ñuy nyu ak mom di dem bu ñu ñëwé bi manké dem fëgg ko fajar mu ñëw motali kenn xamul dépense am la kenn xamul nangamam la mu ñëw motali auto bi waye yalla dogal ñu demee dem dem dem dem ba xam ne lii ñu ko teg metti na ñu waxtaan suñu biir bu oto bi paas bi manqué man nday seen Ahmed Baye Seydi ak Seydi Laay ñun ñooy génne suñu xaalis li ñu yàlla suturaal ñu joxe ko ñu mottali oto bi parcours boobu yëpp ñu dund ko Menguene Mbaor am nu ñu fay demee nga xam ndar ak fu nekk waaye dafa am koo xam ne fu ñu mën a dem rek mu jàng sorti muy Moussa Sy day jël alam sax jàng sorti carrément génne xaalisam jox ñu xaalis bu bari nag teg suñu loxo jàppale ñu moom ak ñeneen ak ñeneen am na ñu bari dañ ciy lim ay nit rek ku si mel ni Mbay Jóob suñu papa Mbay Jóob suñu papa Mbay Jóob Moussa si wax naa ko yaaku tonton Issa Diop tonton ak Pa Mbay ab laay Thiaw Sall mi nga xam ne fépp fu ñu taxaw ci Ndakaaru bu bàyyi libaa baa mu ànd ak ñun di ñuy jàngal ibaadaat yi nga xam ne xale yi xam nañ ko ci diine ji Ablaye Thiaw Sall moo ñu ko jàngal te lu am solo ngi noonu moom amuñu fayam fu ñu tëgg ndakaaru rek di daayira samedi suñu paree dem fédération day ànd ak ñun taxawuñu ci lépp ñu ngi sàkku bu baax général nga ñaanal ñu bu baax Ablaye Thiaw Sall la ak Baara Mbay mi ci États-Unis yàlla dogal bi ñuy dem di dem di dem mbooloo mi di néew ñu jël wa HLM waxtaanoon ak ñom wa Muxsinina wa Kassor lepp luy daayira nek Dakaaru ñu def association di and ak yow chaque samedi ñoom ñu ngi leen di sant bu baax di leen gëreum muy wa Muxsinina wa HLM Grand Dakar Padoua ñun ñep ñu ngi leen ñaanal di leen gëreum li ñu bëgg wax lepp lepp du ci xaj li ñu bëgg wax ak heure bi te yaakar na ben mo fi am ku ñuy déglu kenn la muy général Baye ñu jéem a tënk kàddu yi rek waaw loolu daal lañ fi amoon ci ay kàddu général mention spéciale à xale yu jigéen yi génération bu nekk jaar na fi ñii am nañ jëkkër sëy waaye yàlla suturaal nañu xale yi màgg di ñëw génération bu ñëw rek beneen tegu ci diine yi day dox te ci kanam la jëm incha allahu rabbi diine ji yàlla moo ko moom di gërëm bu baax kenn koo xam ne bu ñu agsee fi moom it moom la muy alaaji pël mële bi ñu commencé 2013 xamuñu dëkk yi dëkk bu ñuy dem rek xamuñu ko alaaji moo ñuy woo nañu fii la tegtal ñu di ñu taxaw ci lépp li ñu bëgg a wax yëpp wallaahi azim xajul xajul ci bis bi bis bi tey comme ni ko ñëpp xamee rek di jégalu bu baax a baax a baax a baax a baax ci kàddu yi di gërëm waa na di gërëm waa na jiital ci président bi Médoune Njindooy sëñ Matar Ablaye Thiaw Mayacine ak président organisation muy Ousmane Laye sans oublier xale yi nga xam ne ñooy ñoo leen di jàppale ne ci góor ñi muy Njàmbelaay muy président daayira xale Baay Laay Adama Limaamu Habib ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla jàppale leen bu baax a baax a baax a baax a baax Baye Seydi Paye ak Ahmed ñu ngi leen di gërëm bu baax bu mbir yi andon, general, ñun ñi ñoo andon général di yoxal mission ba li agsi fii tey de 2013 ba tay ji ñun ñi ñoo andon di doxal and ak xalé yi di liggéey ba yalla taxawal bis bi ñu ci sant yalla bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax bu ko défé ñu euh décoration yi nga xamné mom lañu bëggoon def waaw kon ñu ñu jël ñu jëkënte ak temps bi ñu tudd seen tur ana ana ki ci ki ci njëkk muy suñu papa Baye Serigne ki ci topp muy Moussa Sy waaw ku ci topp muy Moussa Sy Alaaji Pël bokk na ci ñi nga xam ne moom la ñuy décorer Alaaji Pël Ablaye caw Sall bokk na ci ñi nga xam ne moom lañuy ñuy sargal di ko teral ak suñu chauffeur bi nga xam ne moo yàgg ànd ak ñun muy yaaku ya kan ñooñu su ma jumul waaw bu ko defé kaddu gi ñu ñoon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ma ñang yalla la yalla fay donc ñi ñi wax noonu décoré nañ leen mi ngi noonu yàlla na yàlla fay jeuf e bismillah bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ñu ngi sant yalla bu baax serigne bi di jéggalu kaddu yi bu baax ndax ñun fu ngeen tok duñ fa am kaddu ñu ngi ñaan ci sa barké bay nga jéggal ñu bu baax di doylo kaddu bay sering. yi mu ñaanal njabootu bay lay ba ci khalifa bi ak manang mi fi jaar yépp ñu ngi doylo seen kaddu ci nuyu ak ñaan ak ziar bi ñu ñaanal njabootu baylay Laay gi khalifa gi yépp ñu ngi doylo lolu njëkk di la nuyu yow mi kilifa jotay bi di la ñaanal yalla yàlla na fayal ñu la yàlla na samal ñu la ci sa barke bay tay bes bi besu sante yalla la bu baax ndax dañu nek ay xalé ñu wax ñu ne ñu réussir le sëriñ Ablaye jangon mu tollu ci at ñu di waxtané amone yéné né ne ño am li ñu neex dinañ fi tantal général Baye Ndiine mu jaar fune nak ba agsi kon tay ñu ndam lañu am ndax lu sa defon, defoon yow nga ñew def ko sañ nga ne am nga ndam kon la imam makhtar di wax rek ndam lolu yëpp nañ ko boole sante ko yalla sunu borom ñu lay ziar bu baax ci bëgg bi nga bëgg lu baax ñu lay ziar ci ay jang yi ci ginnaaw lo daan dekkal sunu nopp ci performance ak bëgg lu baax ak gëm sa gur ak lo ak liggéey mbax gogo nga daan duggal sunu bop wax yalla reccu wuñu ko kon ñu ngi ñaan yalla bu ñu juyok yaw ñu ngi ñaan ta barke bay yalla na wacc sa kaw wax deug yalla gërem nañu la sant nañu la te bu ñu jotaay bi ni mu taaroo ni mu rafété ba li soso bañ la sétsé mbax gang ñu waxon ci képp ku dëkk Dakar yaakaar naa ci lañu téggu tegu résultat baangi ni kon Alassane ñu ngi lay ñaanal bu baax di ñaan lépp luñ la yéene yàlla na la dal ci barke Baay Laay yàlla na barke Serigne Ablaay wàcc sa kaw ndax looloo waraloon ñu ne day jaadu day yel ñu jël bés bi ne dañu ci rendre hommage Serigne Ablaay ndax mérité na ko ndax mbir mi mbiram la njaboot gi njabootam la tànt bi tantam la tool bi toolam la kon bu fi toogoon lépp ci loxoom lay tegu waaye olof day wax ku des dese kon Alassane merit bi yaa ko amee di ñaanal sunu papa sunu xarit di sa wayjur di imam Mouhamadou Makhtar ku ne imam Makhtar rekk ne ndakaaru ku ne ndakaaru ne sunu papa ak sunu maam yi toog kon lépp sotti seeg def si la wax dëgg yàlla bés bi lu ne def na ko ci loo xalaat ci lu baax sunu papa imam maxtaar def na ko ci ci alalam ak teraangam ak i conseil te yëg nañu ne ñaanam ak barkeem jiite nañu ci palaas bi kon alasaan ñu ngi ñaan mat gi ñu ko mat doom mat gi ñu ko mat taalibe ñu ngi ñaan loolu yàlla bu mu dañ ci barke bàyyi la yàlla bu ñu juyoog ñoom kon ñu ngi lay seereel ne gërëm nañu ko démb gërëm nañu ko tey te ñu ngi ñaan ngërëm loolu yàlla nay sax ci barke Baay Laay alayhi salaam délégation bi papa Baye Seydi Sarr jiite wax dëgg yàlla na ngeen seede ne doyloo nanu ko rafet na lool su ngeen demee ngeen ne ko sama kàddu ci turu ndakaaru yëpp gërëm nañ leen sant nañ leen di ñaanal sunu xarit muy Alaaji Idrissa ndax Alaaji Idrissa day sunu xarit di sunu way di sunu serigne di sunu lepp bok gi mu bok ci bes bi mo waral lepp luy kar joge kàmbareen moko fay kon lolu wan nañu ne njabot gi njabotam la tol bi la kon ken du ci man kon alasaan lolu nga def fornu ci ñun torop ñu ngi ñaan sa barke bay yàlla na sa kaw geureum nañu la sant nañu la ñu ngi lay ñaanal bu baax yalla na lañu yalla fayal di ñaanal sa mag Chérif Ibou seni mom tamit wax deug yalla kep ku bëgg lu baax rek di nga ko bëgg kon ñu ngay ñaanal moom itam Alassane yalla nañu ko yalla fayal general lo gis rek am lu ko waral sunu mam, ak sunu yaay yi tok wax fa deug yalla depp bi jang yi soso yandaluñu fanaanu ci dox ci jàng yi ba fépp fu laaya nekkoon dëkk Dakaaru te dëkk feneen sol nañu seeni dàll seeti la nela la général bi dafa war a ñëw Ndakaaru war nañu ko teeru war nañu couleur bés bi yëkkati ay millions yu bari teg ko ci loxo xale yi suñu limee dañuy juum waaye dinañ jël ngërëm li ak nuyoo bi teg ko ci loxo Xadi ak sunu yaay Ndey Ndate ñu gërëmal ñu ñëpp waa groupe maam Seydi waaw groupe waajal woote bi ak meer yëpp wax dëgg yàlla sëriñ bi yàlla na nu leen yàlla fayal bu baax wax dëgg yàlla yàlla na nu leen yàlla fayal ci barke Baay lay ndax su dul woon ñoom bés bi dana ñaaw ndax xam nga li may wax bañ fay ñëw ñoom lañu àndal nga ñaanal ñu teg ñu ci yoon kon soxna yi sunu yaay yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di ñaanal njabootu bayraan gii toog yu jigéen ñi soxna maam ma teg ummi Jóob ñu ngi leen di ñaanal bu baax yàlla na lu leen yàlla fayal ci teew bi ñu teew ci bés bi kon sëriñ bi wax fa dëgg yàlla ndakaaru gépp jénn nañu daayira Shamsuddin ñu ngi leen di gërëm daayira HLM ñu ngi leen di gërëm daayira HLM ñu ngi leen di gërëm waa kaay baax ñu ngi leen di gërëm waaye Muxsiniina ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla sunu borom yàlla nanu leen yàlla fayal di nuyu koo xamante ne ku tudd pénc bi rek tudd ko muy président Cheikh Seck di sunu pàpp di sunu kilifa ndax lu ñu ne rek mu nekk ci fu ñu dem mu fekk fa kon ñu ngi ñaan yàlla nanu ko yàlla fayal ci barke Baay Laay alayhi salaam di nuyu te gërëm délégation ministre Ousseynou li ñu ñu yabal ñu andak ak délégation bu am solo ñu ngi ñaan yalla sunu borom yalla nonu len yalla fayal wax deug fa yalla suñu tuddé Ismaïla Diène ak elage Idrissa Diop Mor Diagne soxna marem kan ak Fatima Aziz kan bëgg nañu lool su ngeen démé ngeen nuyul ñu ministre bi nee ko ñu koy sant diko ko ci gungé bi mu ñu gungé ci bés bi di gërëm daaira tidiane pi nga xamantene ño fi nekk ñuy daayira sopp da baax ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax bi ñu fa demee yëgal leen ne leen sunu général dafiy ñëw dañoo joxe instruction ne seen daayira yi nañu ñëw sol yu weex ngir teeru sëriñ bi kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax daayira murit beeg daayira xaadar bi ci koñ bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax a baax waaye sëriñ bi imaam Maxtaar daf ñu ne woon suñu ñëwee ci sa kanam nañu ko teralal Alaaji Idrissa ndax bim ñu ko dénkee mosu dégg dara kon maa ngi ñaan ci sa ndigal ci kàddu yu tënku ñu jël lii jox ko Alaaji Idrissa ne ko baayam bu baax bi imaam Maxtaar moo ko ko jox di ko ñaanal yal na la yàlla fay ci barke Baay Laay salaam mu waxon ñu neñu Ablaye Fall tamit mu serigne Ablaye kuko teral ci bésu serigne Ablaye teral ko ci imam Makhtar yella na kon Ablaye Fall sa baye imam Makhtar nian nga sañ ci sili andak ñaan ak ziar neena na na la ci barke peul tamit amna ci décoration bi mom tamit mañang lim ci wax doy na dañ koy doyloo moom tamit ñu ngi koy wax mu ñëw jël décoration am ibulaay li ci mañang wax tamit doy na démb la woon ak xale yi day jaadu bu xale yi di def jàng ñu teral ko kon décoration ibulaay mi ngi noonu Ablaye Thiaw sàll moom tamit xale yi gërëm nañ la sant nañ la ñoo la teralee yére boobu yaaku tamit xale yi sant nañ la gërëm nañ la ñoo la teralee bés boobu liñ ciy tëje mooy sëriñ bi lii dañuy ñaan mu sax te incha allahu rabbi yëg nañu ne mbaax gi ñu waxoon performance gi ñu gëmloo woon ak topp kilifa yi ñu gëmloo woon que ne nit dafay rampe moo ñu jural résultat bi kon leçon bu ñu dugaloon fii fasee na koo dunde kon ñu ngi ñaan ci sa barke yàlla boo ñu fàtte ci ñaan ci barke Baay Laay loolu moo doon kàdduy di bañ a fàtte dafa am sa benn soppe ku ñu naan mustafaa Seck nee na sa soppe la woon sa wóllëre ba taawam yaa ko tudd tuddee ko sama am Seydi mu amoon yéene ne daf lay décorer su fekkee mu ngi ci tànt bi moom Moustapha mu ñëw ak joxe nako kon baxna lolu mo moo kaddu yi serigne bi di yëg lepp lu fi manke rek sama ñàkk mata dila waye ma ngi ñaan ci sa mbaax yàlla nag ñu motali lepp ci barke Baay Laay alayhi salam ngien dira jeuf yalla yalla fay ñu jox kaddu gi Baye Seydi sar wa Baye Seydi neena na bismillahi rahim alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi julli di sëlmal ci maam limaamu alayhi salaatu wassalaam di ziyaara képp ku fi teew di wax ci turu imam Matar ibnu mam Babacar nee na lim ko yóbbunte woon ci mbooloo mi bari na lool kon dafay jël rekk ci ay kàddoom ñaar rekk joxeel nu ko ndax nee na bay njiin moom la tànt bi yëpp walla adduna bi di déglu bay njiin nee na sa papa imam Matar dafa ne mi ngi laa gërëm bu baax a baax te di la sant di la ñaanal yàlla fan wu gudd lool te ànd ak wér lool suturus bu ànd ak teraanga amin xéewal yu ànd ak mucc di la ñaanal nee na mission bi nga dugg waaye sang yàlla nga teere mu ne ci sa barke maam sa turandoo ak baay baay Abdoulaye barke baay Abdoulaye yàlla nga sutaw fan ànd ak moom ak tal yàlla na ko yàlla defal nee xam naa bu sax sa doomi bàjjan ñaanal la rek yalla mën na nangu ñaan dëgg la kon yalla na la fi yalla yagal mo and ak wér sutu su and ak teranga neena kontan nañu ci yow diine ji yépp kontan nañ ci yow imam Matar sa baay nee mi ngi gërëm ndakaaru dafa top ne rek dafa topone tanki serigne ablaye fi Nikandakaru ka soppe fonke nikandakaru te, yek téye yëg na xabit bu baakha baax kon imam matal bi ngi leen di gërëm yéen waa ndakaaru ne ne itam ndakaaru def tey xale def ko sama diine yi xalay ak mag ñu mosña kon xalay taxaway bi yalla bu mu dak 40 ans kumal jang nañ ko fi ak Serigne Ablaye kon tay ji bes bu graw la kon yal na barkeb Serigne Ablaye wacc ci tante bi nak Imam Matar dafa ni nee na ñépp góor ak jigéen mag ak ndaw dangeen ngeen gën a góorgóorlu taxawit diine ji bu baax ndakaaru kër limaamul mahdi alayhi salaatu wassalaam nee na fii moo doon urumu Seydina Issa Sarr wallah gu Mariama Layen nee na maam Seydi moo ko toppatoo ba mu sotti mu dalal fi jàmm yàlla yi nee na kon bu ndakaaru defee lii nee na kontaan na lool si magi ndakaaru yi mu ngi leen di ñaana itam ngeen yàgg fi bu ànd ak wér jigéen ñi seen taxawaay bu mu daggati ngeen góor góorlu ndax yéen yéen nay seetu Seydina Limaamu yéen a nekk fi ci ndakaaru da di yëmbal nangul daka waaye ndakaaru gam na say leer bàyyi ngin mi problème am yenn yëpp il faut ñëw ndakaaru régler ko kon ndakaaru li ko mag ñi doon ñaanale yàlla loolu sax alaaji Idrissa nag wax na ni biñ ko fi yabalee ba léegi taxawaay bi rafet na mi ngi la koy seedeel mi ngi koy ñaanalit yàlla bu baax yàlla jàppale ko ñu ngi gërëm itam ñi nga xam ni mooy délégation bi fi nekk yépp Mbay Kebe jiite ko CP ak Ibra Sow Omar ngi fi ak yéen daaw daag ñoom ñëpp ñu fi des ñëpp bi ñu ñëw ñu dajeeg samag hmm? gëj na ay jàngaloo waaye tey xam naa daf la nam ma moo tax mu teew fii kon ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim